or bu baax bu am qualité adresse bu baax baa ngi nii bijouterie Zamzam nekk fii ci Médina rue 19 angle 18 di jaay ay or yu baax qualité bu jéggi dayoo yoo dul gisat feneen yu ci mel ni 22 carats 18 carats 21 carats wala yeneen xeetu bijou yoo musul dégg numéro Bahran extra bi ak super extra ak yeneen xeetu bijou yu doy waar waaw keñ or yu jógee ba Dubai wala Inde ngir bégal ay clientam bijouterie Zamzam daf lay jox ay or ci njëg yu xéwale nga di ko fayee num la neexee wala sax nga bëgg jënd te yoroo liquide équipe bi nga fay fekk di ay ndaw yu xarañ loolu ci seen liggéey dinañ la jàppale ba sa soxla faju nga fay ak sa Wave Orange Money wala carte bancaire ak cheque boo duggee ci bijouterie Zamzam ba ni ngay delloo sa kër dañuy yox sa kaaraange ba noppi ak accueillir la ci salon bu luxe gunge ci sa ay choix di la indil arrivage bu

daal leen jaamu ci xibaar yi bokk na ci lu ci gën a fës lu tukkee ci mbas mi junni doomi aadama ak ñaar bi fukk ak ñaar la ñu ci xamul ku leen wàll fukk ak ñoo ci wér kenn sonnul ci bésu tey bile ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan ci lim bi nga xam ne biral nañu ko niki tey si talaata gi Mamadou Sall yóbbu nañu ko kaso gannaaw coow li ñu ko doon tudd ñeel njublang gi am ci passeport diplomatique yi danañu ci ñëwaat ak kilifa dal dina ci ci biir xabaar yi fetteel wa illaa beneen xeetu ngànnaay Antoine Félix Diome ma kenn mu di ko doxantoo diiru ñaari weer danañ ñëw ak yéen ca la ko waral bokk na it ci ponk ya ñuy waxtaanee ci biir xabaar yi koppar ga ñu luubal ca biir trésor public ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxilu tuuti bàkk ba jiip ma daal di leen koy yaatalal mu ngoog ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teelu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree tey nag ci talaata gi junni doomi adama ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar la ñu saytu fukk ak ñett ñoo ci amee jàngoroy coronavirus bi fukk ak ñaar la ci xamul ku leen wàll fukk ak ñeent ñoo ci wér kenn sonn ci bésu tey gile ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan ci lim nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale baaxee nañu ko ci arrêté wu ministre de l'intérieur tere nañu lu ko doore altinay démb gi képp kuy yor ngànnaay bu la soxal way laa rek ñuy judiciaire explosive si diiru rek campagne bi ah, maanaam daal lu tolloog ñaari weer mu di nag ñi fi dëkk way la rek ñu bawoo yeneeni réew ñëw fi ah, tey faral di yor lu ni mel article 2 bu bi la arrêté daal dina leen koy tere ah, takk der yi teg nañu loxo ñaari agent au trésor public la leen di toppee du lenn lu du rek sàcc koppar lu tolloo ko juróomi milliards i rajo di ñu xamal ni daal ñoo ñee du ñenn ñu dul Aziz Diop ak Ahmed ñoom ñi lee ci lu kenn la ñu dem rek coppati ci keesu bërëb ba jamono nëgandiku rek l'enquête bay wëy ngir leeral mbir mi l'enquête baa ngay topp yoonam ña ñuy teg loxo di gën a yokku lépp ci coowal njub la ngi yam ci passeport diplomatique yi diggante présidence ak ministère des affaires étrangères Cheikh Samb agent wu boobule ministère division des investigations criminelles teg nañu ko loxo bu nu sukkandikoo ci libération ña ko jàpp gannaaw ba ñu ko toppee dàqe ko lu yàgg lool placé woon nañu ko en garde à vue ba mu ministère des affaires étrangères alxayri dal dinay jibati fii ci Sénégal ñeel célébrité mu di xabaar wu neex lool ci képp kuy xameelu Nana Aidara moom lee di animatrice bu ñu ràññee lool di yëngu ci série télévisée yi nit ñi doon ko gis rek lu bari ci série wujju peccargo ci ay nataal yu taaru lool yu ñu jot ta di leen ko baaxee Nana am na ca borom kër mbégteeg sañse moo ko lal Dakar Buzz di ko ndokkale di ko ñaanal sëy bu barkeel njaboot gu barkeel itam tofta ndi ci gannaaw xew-xewu dox ñaxtu yanoo amal ba si yëpp daanaka fépp ci Sénégal ah, jëwriñ ji ñu dénk njàng mu kawe mi Cheikh Oumar Anne daal dina ca yàddu ah, ci ay kàddoom xeex ba diggante jàngalekat yi la woon ak ndongo ya ma waral yombuloon ah, waaye nag mu ngi gërëm di sant rek waa SAES ak secrétaire général ba ci déplacement ba ñu def rek dem si bërëb ya ngir rek saafara mbir mi maanaam daal andi nañu ñaari parti ci déggoo ak waxtaan ni ko ñëpp gisee UFR yi dellu si nañu rek Cheikh Oumar di woyal naan daal li ñu am tey tax na ba ñaari Mboutik moom nag li mu jàpp moo di ne daal beneen structure mënul woon am ci biir l'université bi bu dul syndicat wu enseignant yi mënoon delloo ginnaaw rek jàngalekat yi ñeel l'université wu maatam nag déglu na bëgg-bëgg yaskan wi wax tëral nañu nag ko yoon bu wuteeg xalaatu njiitu réew mi Macky Sall magistrat instructeur bi gaawantu na mbir mi ba tax na daal yéexaay amatu ca placé na sous mandat de dépôt kenn ci député wu Benno Bokk Yaakaar ya ñu doon tudd ci coowal bi am ci passeport xamal ni kookee du kenn ku dul Mamadou Sall mu des nag naataangoom ba mu àndaloon ci yëf yi di Boubacar Biaye ñaari député yi la nag dañu leen jébbaloon juge d'instruction ba juróom-ñeenti fan ci weeru novembre a di Condé ndawi commissaire Aliou Ba yu rek division des investigations criminelles ña ngi ko teg loxo gaawoo ñeenti fan ci weeru novembre googu rek ñu weesu juróom fukki at ak juróom la am moom Condé ba ko l'enquêteur yi dégloo da leen wax dëgg gi yëpp moom la nag dëkk ca cité Alioune Sow daal leen xamal ni daal ay ndombol tànk lay liggéeyal lu ci mel ni rek ay député Salatoudé Mamadou Sall ak Boubacar Biaye Condé placé woon nañu ko rek su mandat da dépôt ba nga xamee ni ñaari parlementaire yu Benno Bokk Yaakaar yi ñu ngi doon xaar seen wàll àttekat ba mujj na nangoo yeewi kilifa moom la dana nooy war rek ngelaw biti gi ah, fës na tey te siiwal nañu ko moom kilifa dal dina am liberté provisoire ah, naataangoom ya nekk ca kuréelu Y'en ñoo joxe xabaar wi seen coordonnateur ba moo ko biral ci page Facebook am ah, landing bi Sane Seck ci turam ña ngi ko rek tegoon loxo gannaaw coowal njublang yi am ci passeport diplomatique yi bi lembar sax di wëyal yoon ma tax nañu teg loxo ay député ba jamono ji rek l'enquête baa ngi diggante présidence ak ministère des affaires étrangères sant ba te fësaluñu turam ci juróom-ñeenti at la toll ab bant daal la dóor xaritam bi sant ka moom it fësaluñu turam mi ngi toll ci juróom ga teg nañu ko loxo ba defeere ko parquet wu Louga mbir maa nga am nag àllarba gi weesu ca daaj ji ci département wu Linguère bés boobulee ni ñu ko l'observateur di xamale ci boori tàkkusaan gi ba dafa jiitaloonu pa sàmm dajeek morom ma ba ñu sax foo ci suufu garab am lu mu def rek ba sàmmam ya tasaaro ba nag xol ba jeex bu nu sukkandikoo ci journal bi ba tey ba daal di jël rek ab bant ngir jaayante ko moom niki noonu la ko ko dóoree ci kanam mu jaaree fa rek ñàkk bakkanam moom gune ga am rek juróom-ñaari at luubal koppar bari na loolu lu ñu koy gis jamono ji diggante rek la poste ak l'ONAS trésor public itam lu ëpp ñeenti milliards ci sunu koppar la ñu fa luubal division des investigations criminelles teg na ca loxo ñaari inspecteur ba place leen en garde à vue niki altine gi général des finances moo feeñal mbir mi gannaaw mission laata rek agence judiciaire bu état di jébalu plainte la leen di toppee mi ngi yemoo rek détournement de deniers publics faux et usage de faux ak itam délit de blanchiment de capitaux si fukki at ak juróom-ñett dong la tollu gay mi te fësaluñu turam dugal na boppam rek ci coowal mœurs mu di nag ab maçon taxawal nañu ko ca commissariat spécial bu Touba ak ko fa yóbbu di corom ba koy tuumaal ni da koo sàkku ci ab paaka bu mu ko fuuxalee gay ak corom bi toll ci fukki at ak juróom seen ànd neexatul bés ba nga xamee ni rek gune gi dafa guddee ñibbi seen kër ca quartier Daaru Tanzil bu Touba dañu ko dóor nag ba mu sonn ca la waxee waa këram ni daal gay la ne daal la ndawi gune gi newatu fa niki noonu nag ñu jébalu plainte ca taabalu commissaire Bassirou Sarr ba muy def déposition wa ma gune gi daf leen wax ne daal gay paaka la ko tiitalee ko forcé sàkku ko ci gannaaw loolu sikkat nañu ko lu bari ci seen nafsu bakkan nee na it corom bi da koo liggéey ndax nee na maçon bi da koo jox téere mu takk ci ndigg li mu di ci dolli naan daal da doon nëbb waa këram téléphone ba ko gay jëndal ngir mu koy mën di jot gay nag teg nañu ko loxo ba déglu ko mu di weddi rek ne sëy na ak corom bi waaye dëggal na ni gune gi da ko doon seet si saay su ne jébbal nañu ko nag procureur ni ki démb di ko toppee détournement de mineur ak viol El Hadji Sow taxawal nañu ko altine gi ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru ngir mu wuyu ca lañu koy toppee yemook escroquerie ci kopparu ñaar fukki million ak ñaar ay xabaar bi la ni sax ka mu jëlal lu ni mel soxnaay xaritam la woon ba ndaw si doon waajal tas daal Sow da caa profito doon ko labat ba mu Antoine nag mu ni ndaw si na ko dénk rek chantier wu këram nga ca mbaaw waaye daal loolee ma ngi ko def ba mu gëm loowee ndaw si ne daal moom ingénieur la ci bâtiment lay yëngu te yor na société am ndaw si di xam ne ni daal sow da ko wan ay document yu bari ba mu mujjee nangu ci noonee la ko njëkkee jox fukki million ak juróom joxaat ko juróomi million la mu ko jox yëpp daal ci xayma mu ngi ci ñaar fukki million ak ñaar mu ni ko daal kër gi dana Euh, Sow dafa sax ubbi woon compte ca Crédit Mutuel du Sénégal euh, soxna si di wéyal naan daal Sow da koo gëmloo ni daal amoo euh, gagné marché wu 100000 logements yu coopérative des affaires étrangères ca Diamniadio teg si tamap cité bu janook centre aéré bu BCEAO gëmloo na ko it ni dafa war a jot lu tollook ñeent fukki million nga ko juróom yu bawo rek industrie chimique bu Sénégal ndax marché ba mu gagné bi loolu weesoo nag wan na ko lu ëpp fukki terrain wak benn ca waral mu am confiance ci moom ba ñu ko dégloo nag euh, Sow weddiwul ni jot na ñaar fukki million ak ñaar waaye nee euh, moom entrepreneur la buy réaliser ay ouvrage euh, mi ngi xamante que ndaw si ba mu xamee ni rek ci bâtiment lay yëngu da ko woon terrain ci la tàmbalee def fondation R plus 1 la ko waxoon rek mu defaral ko waaye da ko mujjoon wax ni na ko defar R plus 3 mu ci dolli naan dafa changer plan moo tax koppar gi yokku ah, fukki million ak juróom la ca def te it mbas mi moo taxoon parewul ci diiru juróom benn weer yi ah, ndax dañu ko testé woon positif ba noppi hospitalisé ko ah, maître Bamba Cissé ma fi taxawal partie civile bi di biral ni daal waa ji fu mu toll da daan loo ndaw si ne boroom kër a bëggalu ko lu baax ak yeneen sax yamu ko gëmloo yëpp tax na daal escroc client wam ci yërmande ndax pare na rek ngir delloo ko alalam ah, tribunal ba renvoyé na waa ji ci fin wu poursuite ya ah, si ab photo dong bu benn gune gu jigéen dugal ci internet bi ab jula lañu ca jëlal rek lu tolloo fukki million ak ñeent ca centre ville Ndakaaru ah, ñetti defkatu ñaawteef yi kenn ci ñoom di njabarkat beneen gune gu jigéen ak tantam ñoo ko defa lu ni mel moom tanta ja nag moo taxawal lu ni mel ba nga xamee ni rek moo nekk ca e a réseaux sociaux yi ba dugganteeg waa ji di ko baaxee ay kàddu yu dese teggine mu ne ko Umu Xayri la tudd dëkk ci réewu États-Unis ndaw sa di woye ko moom dal ko yónnee ay nataal yu dese teggine mu tàmbalee sawar ci xamante bi moom jula bi ba yegg ak moom rek si ne dana ko takk si la tàntaay gune gi rek a jàllee vitesse supérieure waxee ni naal na ko a koppar mu nangu rek takk ga mu koy wax ba noppi laaj ko koppar gu takkuloor ngir waajal xew mi ak waa kër a ma ko nijaayam ak tantam ba nekk ca wakkaam fii ci Sénégal nijaay joojee nag moo di njabarkat bi jula bi ba mu xamee la leen yëkkati mu dem brigade de recherche bu gendarmerie ñu teg leen loxo defeere leen di leen toppee association de malfaiteurs escroquerie ak diffusion de données personnelles à caractère pornographique Euh, si ab communiqué bu ñu fësal ni ki tey ñaar fukki fan ak benn ci weer wi état major français ñoo di ci biral ni daal euh, faat nañu Soumana Bara may kenn ci ña faatoon rek juróom-ñetti nit euh, ñaax ña di ay nigérian juróom-benn ya di ay humanitaire français ña ngi leen faat weeru août atum 2020 ca parc Kouré fete ca Niger ci opération Barkhane attaque armée française baa ngi am rek altine gi ñaar fukki fan ci weer wi ànd seek l'armée nigérienne bi bu nu sukkandikoo ci état major di ci dolli naan daal Souleyman Bara mi ngi jiite ay mbooloo wu combattant wu état islamique bu Grand Sahara mi ngi rek bokk ci commando bi ci ndigalu Abu Walid a ba muy faata juróom-ñetti nit ya nag da koo filmé woon moom Soumana mbokk yi li leen leen andiloon tey ci xibaar fi ci Dakar daa daañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës yaa ngeen jëf